Iliman Ndiaye toujours Iliman Ndiaye encore Iliman Ndiaye encore une fois son international sénégalais a encore une fois marqué il continue à nous impressionner kookee di Iliman Cheikh Ndiaye à un moment dama naan Iliman vraiment confiance képp moo ko manqué woon pour mu mën a wóyal ñu retrouver benn Iliman bi nekkoon Sheffield United wala mu romb boobee ni mel actuellement confiance boobu mu ngi koy amaat ci lan gis nañ équipe nationale Sénégal Pape Thiaw titulaire na ko football bi nga xam ne mooy poste préférentiel am comme euh, milieu euh, offensif boo xam ni c'est un meneur de jeu euh, électron libre bàyyi ko mu libre ci biir terrain bi mu ngi noonu ne mu doon joueur boo xam ne ni en ce moment retrouvé waat na confiance bu baax ak Everton de même que équipe nationale Sénégal il a marqué un joli but ak Everton tey jii ci match boo xam ne nii vraiment on a senti que ni Iliman Ndiaye vraiment il est tout juste exceptionnel chez ce joueur il est tout juste exceptionnel man jàpp naa ni ëllëg équipe nationale Sénégal mu ngi ci ndordam mën nañoo jàppale à tout moment ci buñ ko mayee confiance mu wane boppam wane fulla ak fayda jugee foofee ñëw ci match Bayern Munich ne boo xam ne nii Eric Kane triple la a toog c'est quoi leur problème en tout cas mën naa ni loo xoole li Premier League bi damay ragal ñoom ñu bàyyi seen loxo carrément mu ngi noonee Arsenal daal war noo jugaat nekkoon ci temps bi mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu waaye Paris Saint-Germain gars yi moom it moom moo dóor ah, mu ngi noonee moom moo door euh, deux euh, buts à zéro moom it euh, kookee di moom moom lañ demee homme du match moom mi nga xam ne encore une fois il continue à nous impressionner il fait des matchs extraordinaires kookee ñu ko Barcola ci demu kookee di Kylian Mbappé ñëpp jàpp nañ ne moom mën na combler absence ko sax nag il est plus technique loolu la ñenn ñi wax waaye euh, li ci kanam raw li bët est-ce que osé bi Mbappé osé moom dina ko osé mu ngi noonu Paris Saint-Germain nag moo dóor 4 buts à 2 kooku di Strasbourg mu ngi noonu mu doon match boo xam ne nii euh, gis nañu suñu international sénégalais boobee di Papa Diong moom it euh, jot na dugal mais malheureusement pour ñoom dañ leen mujjee dóor par la marque de 4 buts à 2 mu ngi noonu gars jàmm ci yéen ba beneen yoon